الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu Fayda bi Kossy TV cosaanu Fayda bi jërëjëf mbokk téléspectateur Kossy TV comme ni ñu ko defee waxtu wu ne kilifa gi gannaaw bi ñu àndee nag moom fee ci Dakar si tertu waajuram kilifaam Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma si tukki mu am solo moom mu tukki woon waaye ku ne xam na ne fu mu ñëwee tombee naag nawet bi ubbi te waxtu wu nawet jub siwaan ñi ne ko daan kilifa gi di defee mooy joxe message ñaanal jullitu yàlla yi waaye rawatina si mbokk yi nga xamante ne ñu ngi àll bi di bay yàlla may leen ndoxam jàmm kon nañ koy bàyyi rek kàddu ki nam ko doon defee rek mu nawet bi incha allah salaam Moussa ñu ngi sant yàlla bi di wax ne baay di wax ne bàyyeekoo nañ ci tukki ba xam ne lépp ngëneel la rawatina tukki mi ñu gàttandu sama sang sama papa Cheikh Mamadou Maye Ibrahima Niass ci tukki mu am kom mu am njëriñ mi nga xam ne defal na ko àddina bi yëpp waaye defal ko umma islam bi defal ko julliti àddina bi yëpp waaye rawatina taalibe baay ak fu mën a nekk rek li sa feet la sa fierté la waaye sa mbég la tam nekk na ndam lu rëy ndamal islam mais ndamal diine ndamal tarixa bi waaye ndamal faydatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiya taala anhu waaye ndamal taalibe Baye yëpp ndamal pay bi la waaye munta ñàkk ndax lii yëpp liggéey Mawlana rek mooy feeñ liggéey suma sang bi tedd bi rek mooy feeñ léppam yëngatoom ak dalam yëpp diine islaam la loolu mooy royaat ci njabootam ci doomam yi ba ci sëtam yi ba ci sët sëtaanam yëpp liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye Radiyallahu Taala anhu mooy royaat ci jëmmi jaami yàlla yëpp ñu di ci jëriñu kon sant yàlla bi sang bi ñëwee rek ndox mi wàcc muy nawet maa ngi ñaan yal yàlla may ñu nawetu jàmm yàlla may ñu nawet bu am koom yal yàlla def ko mu nekk ndox muy jëriñ te du yàq yàlla bu ci kenn yàqoo yal na nekk tëbb gu du dog mukk ci peeb yàlla bi waaye yal na jëriñ lépp luñ ci bay yal na barke yal na meññi yar na ñor yal nañ ko muuroo waaye yal nañ ci ànd ak ngërëmal baay yal na yàlla def jàmm ci àddina bi yëpp yal na yàlla def jàmm ci diine ji waaye rawatina Sénégal yal na yàlla def ci jàmm lépp lu lu ñuy taal ci àddina bi wala lépp lu ñuy fay ci àddina bi wala lépp lu ñuy ragal ci àddina bi ci mboolem luy mbas maanaam luy xeex luy guerre lu mën a doon yal na ci Sénégal daal mucc ñu ngi jublu ay élection yoo xam ne bii ne ay doomi Sénégal rek ñoo ko seq di ko def yan na yàlla def ci jàmm waaye yàlla may leen xel moo xam ne dinañ mën a conduire ñoom ak ndawi jamono ba nga xam ne dara du yàqu kenn du ci loru parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal waaye Sénégal Sénégal yi waa Sénégal yëpp la waaye rawatina Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu dafa bëggoon Afrique waaye dafa bëggoon Sénégal dafa bëggoon Saalum kon kon buñ jubloo élection mu nekk ci biir nawet euh, li may ñaan rek mooy yal na yàlla def jàmm ci nawet bi euh, te yàlla def jàmm tam ci élection yi parce que ñi ñaan ci nawet bi yàlla def jàmm loolu yàlla moo ñu ko sant ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen lépp luñ bay ci nawet bi tam yàlla nañ ko muuroo te ànd ko ngërmandeel baay ak barke di ñaan tam rek élection ñuy jublu si rek yal na yàlla def ci jàmm parce que Sénégal ñoo ko seq te ay doomi Sénégal ñoo ko seq njabooti Sénégal ñoo ko seq te Maolana waxoon na ne njaboot gi yëpp njabootu yàlla la. kon yal na yàlla def jàmm ci élection yi ku nekk ak fa nga nekk rek yal nanga nga defee sa xel ak sa sago te xam ne bu ñu xaajaloo tam ku nekk day ut rek bu ñu amee dañuy àndaar rek nekk benn. kon yal na yàlla dimbale ñi ut ñëpp waaye yal na yàlla dimbale àddina bi yëpp. yana na yàlla dimbale Sénégal yana na yàlla def jàmm ci Saalum waaye yal yàlla dimbale pays ma baay bii di Maolana Cheikh Ibrahim Niass yal yàlla dimbale xalifatu am yàlla may ko fan bu gudd ak wér yàggal ko ci suñ kanam mottali mboolem sémbam ba sémbaat yeneen ba mat ba lépp lu mébal rek ci pays sama sang bi rek yal na yàlla matalal ko ko ci barka sang bu tedd bi di ñaanal sama papa tam imaamu akbar yàlla yàggal ko ci suñ kanam may ko wér lool may ko fan wu gudd eggale mboolem mission defal ko lépp namm namam am lékk bëgg-bëggam yal na yàlla yombalal ko ko te bàyyi ko ci suñ kanam heure bu gestoo gis ñu ñun itam heure bu ñu gestoo gis ko yal na yàlla dimbale porte parole bitam ci gungeem bi xalifa rafet na ñu ngi déglu discours am ci université bi macha allah xam-xam la wane foofu waaye jëmmi xam-xam la waaye dafa bokk ci njabootu xam-xam kon jëriñ na moom itam yal na yàlla eh, eh, yombalal ko xam-xamam toujours waaye yal na ko ci pays bi tam yalla gën ko tagatal xam-xam ba lepp lu mu ci bëgg def rek def ko ci ci barke na sebran di ñaanal yalla mbolam njabootu bay di len siara njobot gu gor gi njobot gu jigen gi mag ñi ak ndaw ñi rawatina Cheikh sama papa Cheikh Mamadou makki sama papa maa ngi koy ziaré bu baax a baax diko di ñaanal yalla yalla yalla gal ko ci suñ kanam diko di ñaanal di ñaanal mbolam jobotam yep di len ñaanal di wax na yalla yalla def jàmm dal ci nawet bi dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahim yal nañ pare ci alhamdulilah rabbil alamin te ànd ak ngërëmal baay maa ngi sant njaboot gi yëpp ñu nekk ci diaspora bi ak ñu nekk senegal ñu nekk Gambie yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci sama ñëw papa bi waaye rawatina nag sama tele bi nga xam ne mooy Kossy TV seen liggéey rafet na rafetlu nañ ko àddina bi yëpp rafetlu nañ ko yal na yàlla yokk leen te barkeel leen te fay leen mu nekk télé télé télé ci kaw nu bi yëpp ni diina ji tasaaroo طريقة بتصارو فايدو بتصارو يال نكو سما تالي بي دي كوسيتي بتصارو ماangi گرم وا فيسبوك ماangi گرم وا يوتيوب ماangi گرم كيب كو خامنا ياغي سوبر تالي بي گا خامنا موي تالي بي بي يانا يالا باركيل لا تا يومبال لا سمبولم بير السلام عليكم ورحمه الله جيرجي في باي جيرجي في باي جيرجي في باي شكرا liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama OTV am ngeen jaaraama yéen baay yéenay liggéey Faydu baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa OTV yàlla yàlla